alors ñu ñëw ci élection locale 2022 mm-hmm. nga perte la mairie de mm-hmm. Guédiawaye mm-hmm. euh, est-ce que vous avez été trahi par le parti non je je ne peux pas dire ça parce que d'abord il y aucun élément objectif buy wone mm, trahison wala même vote sanction xam nga on a beaucoup parlé de wala wala wala sot wala ñu dooleel sa non je vais en revenir mais xam nga da wax sànq lu am solo Euh, sànq da nga wax ne euh, j'ai gagné l'élection de la mais de la euh, de l'élection locale en 2014 à la surprise général muy dëgg et j'ai perdu en 2021 à la surprise générale. pas à la surprise général Si, à la surprise générale. ah la surprise laa gagné lañ ma lañ ma gagné donc élection tamit toujours dafay am dose d'incertitude am ay éléments yoo xam ne. Euh, parfois doo ko maîtriser mu ñëw contribuer et c'est extrêmement périlleux que de vouloir expliquer euh, un résultat électoral par un seul facteur Euh, victoire buy ñëw comme défaite buy ñëw dafay am plusieurs facteurs yu converger yoo xam ne ñoom ñooy créer euh, loo xam ne. dañ la gagné à la loyale. ah oui non moi j'ai accepté. ma ma ma ma. dañ la gagné bon. à xam nga on est encore on est quand même maintenant un peu loin des locales je voudrais pas revenir. non mais mais c'est important. dañ la gagné est dañ la gagné parce que votre adversaire Ahmed Aïdara a été plus fort. wala dañ la gagné. il a été parce, que, parce l'a renforcé. non il a été plus fort parce que a gagné. je crois que loolu du débat maintenant il a été renforcé forcément il a été renforcé par l'opposition il a été renforcé par certains de ses amis qui sont au pouvoir ça je crois que ce n'est pas un secret. dans le camp de la majorité mais oui absolument et je crois que lui-même ne peut pas Il y a eu beaucoup de fuites ces derniers temps qui corroborent euh, le fait qu'il a été beaucoup aidé par euh, des gens très haut placés dans, le, régime. Mais c'est pas un problème. Parce que même en 2014... C'est un problème Non, je veux dire... Pas... département Guédiawaye, 6% du fichier, mais, plus de 400 000 électeurs. Vous, vous, dire, vous, tombez ce n'est pas la seule explication. Ce serait une, euh, de faire une fuite en avant ah, que d'expliquer... Euh, euh, mënuma expliquer defet bi par facteur boobu rek ndax 2014 bi may dem élection tamit non seulement parti bi réellement jàppale wu ma la preuve ba ñuy def seen caravane euh, pour soutenir candidats yi nekk ci localité yëpp. ñëwuñu ci yow bi ñu ñëwee ba pikin ba buntu Géejawaay ki yoroon caravane bi dafa ne noonu duñ dugg Géejawaay <laughs> boobu ñu ngi ànd ak ay saar mobiliser population bi duñ dugg Géejawaay parce que duñ jàppale Aliou terewul ma gagné donc mënuma expliquer défaite bi par le seul fait que effectivement j'ai pas eu le soutien euh, bi ma waroon am yëpp euh, mais il y a eu d'autres facteurs euh, d'autres facteurs qui ont concerné d'ailleurs agglomération yi ci Sénégal yu mag yëpp gis nga vague bi am bàyyiwul Guédiawaye c'est les mêmes caractéristiques démographiques social économiques am na yeneen facteurs yoo xam facteur de division la mais munoo dem ba wax ne dañu def vote sanction wala dañ la sot Euh, mais effectivement bu division amee ci parti dafay am benn impact bu muy am au niveau de l'opinion et au niveau de l'électorat et au résultat on a perdu les locales et on a perdu les législatives qui on suivi